Euh, Kouthia ñu ngi lay nuyu. Euh, Khady Faye maa lay fay baax. ah ñu jot information léegi ñu ne ñu Kouthia dafay génn tey tey nii nii nii hôpital. waaw. Mhm. Euh, ma maa ngi sant yàlla avant tout di remercier le bon Dieu. Mhm. et son et tous les saints hommes nga xam ne ñu nekk ci Sénégal. Mhm. di remercier samay ñaari waajur. ak sama famille. ak sama toxna. donc euh, yàlla def na tey euh, maa ngi nii euh, juste di di génn fii ci hôpital bi. Mhm. donc may remercier nag ñëpp nag macha allah alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. Mhm. d'accord ñu gis benn élan de solidarité bu grave bu am. bi nit ñi yëgee ne Kouthia feebar na Kouthia ngi ci cas grave gars yi commentaire yi ñëpp di la ñaanal loolu ba nga ko yëgee ban sentiment nga ci am. ginnaaw yàlla ak yonent bi ay def nañ seen devoir. Mhm. mais Sénégalais yi def nañ seen devoir. Mhm. may sant yàlla bu baax parce que lii lépp bi ma bi ma sama hôpital la la hôpital la ma fekk. Mhm. réaction sénégalais yi. li ma ci gën a neex notre Kouthia national. notre patrimoine notre patrimoine national. notre Kouthia national prier pour lui ñëpp di ñaan Facebook yi internet ñëpp di ñaan. mais loolu ab sant la. loolu loolu kenn ñaanu ko yàlla mais maanaam sondage la boo xam ne tey euh, euh, ci feebar bi nga mënoon xam fi la fi la toll Sénégalais yi. te mhm, mhm. pleuré dama tëdd fi ma toog ma jooy. Mhm. parce que man foogoon naa damay dem nii rek dans le flanc. foogoon naa man damay dem nii rek. ñi ma bëgg de ñi may defante ñu waaw Kouthia nee na ñu neex sa bi mais xaw ma ne am naa accès a quatre vingt dix neuf pour cent ci biir xolu Sénégalais yi nekk Sénégal ak ci diaspora bi. tey. li may def moom mooy sant yàlla sant sénégalais yi. ndax ñëpp ñaanal nañ ma chrétien musulman athée. murid bi de tous les tarixa koo xalaat ku nekk ci dara xale yu ndaw yi paa yi maire yi tout le monde tous les sénégalais même qui sopa pas sénégalais les étrangers qui vivent parmi nous les guinéens ñi nga xam ne dañuy am am am ma ñëpp ma ñaanal loolu damay sant yàlla. Mm-hmm. damay sant yàlla xadi damay sant yàlla damay santaat yàlla damay delluwaat di sant yàlla. Mm-hmm. d' accord la question mooy Kouthia da nga corona woon wala corona woo. Euh, xadi feebar la boo xam ne. Mm-hmm. Euh, je pense que ne comme ma testé ma positif dama nangu ndogalu yàlla. ndax buñ la testé nga mooy wa maanaam que yow feebar bi jàpp na la. boo ñu la testé nga négatif mooy feebar bi jàpp la. Mm-hmm. comme que kay mooy maanaam feebar bi nekk na ci man. Mm-hmm. nekkoon léegi yow fan fan nga jëlee feebar bi wala yow xamoo ci cas communautaire la ñu. ma wax ne fan laa jëlee feebar bi. Mm-hmm. parce que tu sais bien avant y avait un de de nos collègues qui s' appelait Ba qui s' appelle Bakar euh, Bakary Cissé. ma ne moo feebar TFM. ñu naan TFM am na am nañu cas. mais dama génn def benn vidéo mhm. ne leen c'est pas important ñu xam la personne di am feefe feebar bi nañu ñaanal ba pare les journalistes tamit dañu am solidarité la presse mhm. am na yoo xam ne il faut nga ko parce que il dafa am mhm. na sénégalais yi comprendre ñu ko socialement mën nga koo am ñu génn di la daw kon dëmm kon am loo xam ne dañ ko war a suñu bopp suñu biir c'est ça mais man euh, je pense que ne Euh, lu li ma dal. Mhm. Euh, dal ay quelques membres du groupe euh, Futurs Médias du ma wax maa ko fi indi du ma ne dañ ma ko fa wàll du ma ko jiw kenn dama yàlla la dogalu yàlla la. Mhm. cas communautaire importé exporté cas rencontré yooyu yëpp ñu ci dugg. mais testé nañ ma moom positif maa yàlla parce que tamit xam yi mhm. il faut que sénégalais yi xam ne. parmi ne Kouthia dina dina am tur bu tudd Kouthia dina dugg ci xolay sénégalais yi dinañ ko bëgg. Mhm, mhm. ma sant ci yàlla waa léegi yàlla ëllëg ne quatorze millions sénégalais yi. Kouthia dina bokk ci ñi corona ñëpp dinañ ko yëg kon damay santaat yàlla pourquoi man mu nekk bu positif ma sant yàlla bu négatif bi may daw. Mhm. waaw. d'accord léegi euh, ñu jékki-jékki saa yi tamit dégg ne Kouthia mi ngi ci cas grave yi parce que dafa am problème cardiaque ak euh, problème jabet euh, ñu ne yaa ngi en réanimation est-ce que information boobu tam amoon na. parce que Seydina Mohamed wax yooyu yëpp dara ci. mais des fois damay comprendre la presse dañuy bind des fois ay yoo xam ne c'est juste pour euh, mettre en danger nit ki il faut ñu nit ki ak ah, déedéet fàttewuma dara il faut nekk ci préparation yaa ngi dégg ay fàttewam dara yooyu mm-hmm, mm-hmm. est-ce que mën naa la reprendre dans cinq minutes ma dugg ci oto xam ne am euh, autonomie ah. am tamit sama beneen xarit Serigne Fall Mbacke docteur mm-hmm. moom tamit il veille à moi mënuma lim di bàyyi mais dama la bëgg a xamal ne chrétien musulman athée. Mm. Sénégalais lambda taalibe xale bu ndaw soxla na benn vocal boo xam ne benn xale bu ndaw boo xam ne dafa ne papa day defal Kouthia dafa seetal papa yàlla na Kouthia tane dina tane de. Mm-hmm. xale bu am quatre ans cinq ans. waa ki nga xam ne da doon dindi stress nit ñi docteur Sénégalais yi de dix-huit heures à dix-neuf heures kii faj Sénégalais yi bu feebaree ñu bëri dinañ am na leen jaaxal moo tax yàlla dellusiwaat na ma damay sant yàlla. alhamdulilahi rabbil alamin Fatick euh, Khady Faye day boole ñaar ñaar ñaar yoo xam ne euh, da ngay traité bi traité bi d' accord donc donc Fatick Fatick maa moo nekkoon ci yow mais est ce que yaa ngi woon ci ci cas grave yi non non non mosuma nekk ci cas grave mosuma nekk ci cas grave maa ngi yàlla bu baax euh, parce que bu ma nekkoon ci cas grave yaakaar naa ne kon di yóbbu ñooñu du ma fi bàyyi mais nee naa ñaanu Sénégalais yi Mm-hmm. ñaanu sénégalais yi ñaanu samay waajur ñaanu euh, euh, euh, toute la population sénégalaise ak ñi nekk ci diaspora bi Euh, tax na même bu ma nekkoon ci cas grave yi yàlla dimbali na dégravé cas yooyu sama cas <laughs> yàlla dégravé na sama cas parce que euh, vraiment euh, li mooy Sénégal Sénégal lii mooy dëkku Sénégal lii mooy waxtaan mooy rumeur mooy coow mais loolu yëpp sant yàlla la parce que am na foo xam ne liñ ma dundal noonu ay Kouthia mu ngi ci cas grave yi moo taxoon ba Sénégalais ñoom tamit ñoom ñëpp ñu tiit tiitaange boobu moo tax ñoom ñëpp ñu daal di ne nekk benn def benn say pour pour pour pour pour ñaanal ma su fekkoon ne dañ ko jël à la légère peut-être nit ñi dañ ko jël à l'importance parce que am naa fi ay am na fi ñeneen ñoo xam ne dañ fi corona euh, te peut-être dañ ko jël kon euh, kon euh, Sénégalais lambda mais fi ñuy yóbbu affaire bi ko ci àll ba jafe dafa cardiaque dafa ci jaamu ci cas grave yi est-ce que nekkul dans le coma yooyu yëpp moo tax ñuy tiit. daa damay bàyyi xel te loolu dama ciy sant yàlla bu baax euh, ñu ko dund nag dama leen di euh, sant parce que ñoom ñoo tax peut-être a bi am ampleur boo xam ne egg na foo xam ne sur le plan national international sama famille euh, sa kilifa diine yi Sénégal lam daay d'accord léegi waa groupe Futurs Médias ban taxawaay lañu amoon ci feebar bi. non non non taxawaay discrétion. Mm-hmm. taxawaay boo xam ne bëgguñu woon tamit appuyer li xam ne mooy li Mm-hmm. boo xoolee dans toutes les émissions dañoo garder le silence. Mm-hmm. te man dama adapté wu ci loolu parce que dama ne nit ki euh, euh, feebar nit ki euh, feebar la rek jarul nga ci nga ci benn yoon nit ñi yëg nañ ko mais amul problème mais lii la yàlla bind lii la yàlla wax ne Kouthia il faut feebaram nit ñi di ci wax dama koy nangu. Mm-hmm. damay sant yàlla même bu doon ne Kouthia il est dans le coma Kouthia a contaminé tout le Sénégal dama koy nangu. mais yàlla xam na ndax man dama contaminé war a contaminé wu ma damay nangu TFM nag euh, salut jërëjëf. Mhm. le patron bi woon ma le directeur woon ma le le directeur le directeur woon ma et euh, ñi ci topp ñëpp nag yeneen directeur yëpp woo nañ ma euh, daal di may defal ma kontaan ci loolu tamit taxawaay bi rafet na trop waaye tamit description rafet na trop waaye lu daal vraiment ñoom seetaan nañu. léegi euh, par rapport ak aussi dégg dégg naa dafa am euh, ñu dégg ne euh, cas décès dafa am ñi naan Kouthia la du Kouthia ba nga jot ci ay appel est-ce que loolu tam dëgg la. yaa ngi nii wax ak man man <laughs> eh, yaa ngi nii di wax ak man. Mhm. kon ça veut dire que ci cas ku décédé du wax. Mhm. xam nga léegi la yokk yooyu ñu doon yokk noonu la di bind ay décès cas grave moo tax nit ñi tiitoon doy egg ci yàlla suñu borom di ma ñaanal mais loolu sant la. xam mm-hmm. nga ah, maa la ko wax léegi nee naa la bu ko gars yi banaliser woon mm-hmm. na du am accès ci yenn prières yi. Mm-hmm. mais niñ ko médiatiser grave ko noonu moo tax sénégalais yi tiit te moo tax ma xam sénégalais yi fo nañ toll ci man loolu af cant la. sant yàlla sant yàlla sant yàlla sant Seydina Mohamed sant tous les hommes saints. église bi. monseigneur cardinal Théodore Adrien Sarr. Mhm. tous les bu yi nekk Sénégal ñëpp ma woo toutes les familles religieuses ñëpp ma woo. Mhm. sama papa sëñ Mbaye Sy Mansour yëkkati na téléphone am woo ma directement. le mhm. xalifa de dix huit minutes. waaw am tamit sama beneen xarit Serigne Fall Mbacké docteur. moom tamit il veille à moi lim di bàyyi mais dama la bëgg a xamal ne. chrétien musulman athée. sénégalais lambda taalibe xale bu ndaw. foofu la benn vocal boo xam ne benn xale bu xam ne dafa nay papa day demal Kouthia dafa seetal papa ne na Kouthia tane dina tane de. Mhm. xale bu am quatre ans cinq ans. waa ki nga xam ne da doon yi de dix-huit heures à dix-neuf heures kii faj Sénégal yi bu feebaree eh, ñu bëri dinañu am lu leen jaaxal moo tax yàlla dellu si na ma yàlla. d'accord léegi euh, nan ngay sensibiliser sénégalais yi par rapport ak maladie bi yow jaar nga ci xam nga li ci nekk. Euh, lan ngay wax sénégalais yi par rapport ak corona. non loolu moom dama ci bañ a dugg de trop. Mhm. Euh, peut-être euh, dinañ ko gën a yaatal ci beneen waxtaan. Mhm. mais li amoon solo tey xadi mooy mooy lii bu ma ko génn woon. Mhm. ne maa ngi dem sama kër maa ngi sant yàlla maa ngi nii di ñibbi yaa ngi ma jël en interview en cause loolu maa ngi nii di ñibbi di sant yàlla. Mhm. yàlla moom ma ko tegoon bu ko yàlla teg jéemoon ne natt la sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général pour murid yàlla na fi yàgg te wér wax na benn wax bu solo mhm. yàlla dafa wàcce virus bi jox ko ay ndigal moom fu mu war a jaar mhm. dañ ci war a jàngat jàngat bi mooy lan la tey football amul te tey àdduna baa ngi dox musique amul àdduna baa ngi dox yaa ngi jégg concert amul àdduna baa ngi dox caaxaan amul àdduna baa ngi dox kon ñun mun nañu dund sans mbir yooyu kon yàlla daf ñuy yónni pour ñu am delluwaat suñ xel ci yàlla. Mhm. man de li ma ci jàngat mooy retour vers Dieu et sécurité devant Dieu sëggatu delluwaat suñu borom. Mhm. c'est pas parce que ku mu dal rek yow da nga da nga nekk caay caay de. wala mhm. da nga dem def yu bon de déedéet. mais yàlla day tànn ay nitam waaw pourquoi yàlla tànn Kouthia. Kouthia est populaire. pourquoi mu teg ko feebar bi parce que pour ñu woon ne li dal Kouthia mën naa dal am lambda. man dama ne jihaat la yàlla dama ci tànn dem naa xeex ko ba mu jeex. Mhm. wallahi wallahi xeex naa ko ba mu jeex tàkk dem naa ci sama doole mooy joxe naa sama loxo piqûre nañ ma def nañ ma lu ne def ni ma ko mun génn ci jàmbaarte man dama demoon ci xar sant naa yàlla ak yonent bi ndax yàlla moo may yebal ci xam ne dañu war a fës ci xeex bi pour xam ne ne am na mhm. yàlla dafa boole ci ñi di natt pour sénégalais yi ne ah comme que feebar bi bàyyil ku caa ah, mais xadi fay comme depuis kañ laa commencé xeex corona mhm, depuis début bi depuis jeudi bi sama actualité sama sama sama sama sama sama sama thème yëpp dama ko actualisé ci corona di mm. xeex man ko dinañ la daan mm. yow corona yaa ñu lakkal <laughs> sama benn waaye dama woo la ma ñëw corona daan na la yaa doon corona ni ñu koy def ba daan mm-hmm. mais daan na la ma ne ko waa ba tey xeex la mm-hmm. ma jël tous les hommes politiciens lancé la woon ñu def message Baaba Maal Youssou Ndour ñëpp laa imité pour ñu wax ci corona bi mm-hmm. waaw fekk comme loolu la rek kon man tey di xeex corona ba corona xeex ma daan ma ma jóg man tamit jàkkaarloo xeex ko daan ko ndax man maa ko daan lu ma daan ko bàyyi génnaan naa maa ngi sant yàlla. d' accord léegi à quand la prochaine sortie vidéo de Kouthia loolu la ñëpp di xaar. léegi euh, euh, léegi comme que dama nekk ni di soog a na xam nga yow li may wax loolu sax dafa bëri mais mhm. <laughs> yow sama xarit nga te yow euh, sama taw mhm. boobu léegi dégguma la mhm. léegi dëgg yàlla li may def moom mooy jox Sénégalais yi su peu de temps boo xam ne dinaa génn. def benn point de presse bu gën a yaatu. Mhm. xam nga li xam nga li site internet la. Mhm. sama sama yi nga xam ne amuñu whatsapp ak euh, fan si Kouthia bi nga xam ne dafa nekk mbadaxum te amul whatsapp. Mhm. te mënul dugg ci euh, réseaux sociaux yi suñu defee point de presse nag boo xam ne dañ koy def euh, ba Sénégal ñëpp jox ko ñu def ko ci suñu làkk ñëpp jot ci wax dëgg yàlla dina gën a mën a yaatu moo tax incha allah damay noppal ko fan yii rek après génn def benn benn benn point de presse pour ci. ci li nga xam ne moom mooy coronavirus ak pollution bi nga xam ne ci laa nekkoon d' accord merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di remercier bu baax une fois encore di wax ne damay sant yàlla di wax alhamdulilah rabbil alamin di remercier tous les sénégalais tous les sénégalais et aussi les journalistes qui les yi nga xam ne. si mhm. internet yi nga xam ne. Mhm. dañoo teeyoon ci mbir mi. Mhm. reprendre ñu yenn wax yoo xam ne duñ ko waxee peut être dañ leen tôt ou tard ku caabu génne ñoom dinañ rus man. waaye nag waaye nag yàlla moo dogaloon loolu. pour affaire bi mën a am ampleur bi jërëjëf Khadija yal na yàlla defal jàmm. jërëjëf merci beaucoup Kouthia. ok merci beaucoup Kouthia.